Euh, salaamaaleykum euh, suñu mbokk internet yi ñu ngi leen bu baax a baax euh, maa ngi présenté maa ngi tudd Abdou Karim Gueye ngeen gën ma xam ci Karim Xrum Xax comme ni nga ko waxee tey yéen a ngi seen chaîne Abdou Karim Gueye YouTube mu nekk ay xéwal yoo xam ne dañu dañ ko baaxee saa su ne comme ni ñu ko doore woon nag ak Clédor seen Clédor seen nekk koo xamante ni jot nañu fi def ak émission moom si rajo Top FM 107.0 bi ñu defee émission bi aussi rajo la woon. ku ne xam nga ni une image vaut mille image bokkul ak bokkul ak ba tey ak ak ak rajo ñu wax ci wàllu ressource minière Sénégal ci wàllu pétrole Sénégal explorer beeg exploité beeg offshore ak onshore ak lépp loo xamante ni maanaam euh, dafa nekk Sénégal ci wàllu richesse ñu waxtaan ci lu bare bare bare bëri mu nekk loo xam dafa intéressé wu nu ñu bëri nit ñi nag ñoo doon réclamé ñu bare bëri dañu doon woo suñu téléphone di jokkoo ñun di insister pour ne dañ ko bëgg ay image parce que audio yi au fait ñom dañ dañu bëgg ay parce que olof sax dafa dafa ni euh, lu amul seede lu amul tay nak ñu ak dafa émission leeral leen lépp lo xamni richesse Sénégal ci ressources, minières, exploitation découvrir rek niñ utiliser ba entreprises ko entreprise ban année lañ commencé exploiter petrolu du Sénégal ak or li fi nekk ci ressources yëpp ak yan xeetu ressources ñoo nekk Sénégal ak naka la ci Sénégal jëriñu ak lan la ci Sénégal am ak naka la ci tubaab yi jëriñoo tey nag ñu dalal Clédor Sène Clédor Sène moom mooy sunu sunu sunu sunu sunu gan tey te bii mooy premier numéro yi parce que xam naa ni li ñu war a wax yëpp du xaj ci premier numéro bi euh, ma bàyyi ko mu nuyoo nekkoo ko salaamaaleykum euh, grand ñu ngi lay ziar. salaamaaleykum wa rahmatulahi

Euh, manam dara ñakku fi. cest à gis dafa am départ daa am lu koy déclenché euh, euh, grand lan mo lan mo déclencher Clédor Sène intéressé wu ci ay ressources minières ak loolu mooy buntu bi ouverture ba nga dem bay comprendre la ngay xam information nga xam ni Sénégal yi amuñ ko lan mo ci xiirtal. très bien man maa ngi la doon wax ci suñu émission bi ñëk Top FM que dama amone ben couple de français bu ñu gane won parce que ñun dañu basé won Île de Ngor. Don nap amoon fa ben vedette ak yoy amoon ay xaritu touba ben couple Loïc ak Muriel ñooñu dañu ñëwoon fi pour top, ben livraison wu euh, pétrole bu waron dem Saar léegi euh, ñoom ñu ni espionnage industriel lañuy def mo boobu maa ngi ko doon doog a dégg leen mais lan moy espionnage industriel expliquez expliquer ma li leen fi indi donc euh, euh, livraison pour le pour traitement expérimental pétrole mom lañuy top man leen mais pétrole amul Sénégal ñu ma si dañ top. top ba am ko ba am bordereau de traitement expérimental 12 000 barils sur 61 000 barils ba jox ñi ci ñun copie ci la ma nak né le Sénégal amna pétrole pétrole xolé euh li ben extrait au journal « Jeune Afrique Économie bu 93 euh, donc ça fait 25 ans. depuis 1993. depuis 1993 donc ça fait 25 ans Je garder ce bout de papier lol day wane ni man li intéressé na ma yàgg liñ ci wax de 1987 en 1992 à Diamniadio. 61 euh, 000 barils de brut et 35 37 000 millions de, mètres cubes de gaz y ont été exploités. Exploités, les explorer. explorer. 61 000 barils de brut et 37 millions de mètres cubes de gaz y ont été exploités. Donc, l'exploration. Jeune Afrique économique, qui est le journal spécialisé sur les questions économiques. 1993 ça fait 25 ans donc ça fait 25 ans que je garde Euh, donc ça veut dire que lii il naa ci gëstu yàgg na ma ci 61 000 barils yi nag de traitement ou 12 000 barils yi nga xam livré pour ñu la qualité pétrole et il s'est avéré que c'était du light crude de meilleure qualité que le Brent qui est la référence dans le marché mondial donc pétrole a une am qualité donc lui, moi ma poussé ci man intéressé

amna sax ben société bu tudd la Diamond Work bu ñu joxone licence en 93 pour mu def recherche su diamant parce que dafa gis ay traces de diamant alluvionnaire le long des cours d'eau euh, du fleuve Sénégal Sénégal document yoy tam maa mom euh ñu jox ko permis 1993 parce que lolu boko waxe Sénégal sax day naxré gem mais uranium ak thorium ak ce nga fa té yooyu ay métaux stratégiques la comme comme la ala la bo monde moderne bi adina bi daf ko soxla pour le développement Le développement soxla là, fi am pétrole de gaz de tourbe de marbre euh, euh, lu sans compter phosphate calcaire Donc, le donc Sénégal il y a le moom bu bouyag. Les na ci suñu ñu nous ñun dañ C'est problème mais intéressé Sénégal booba amul ay médium RTS mo fi nekkoon ak Soleil ak ay Walfadjri ak yoyu donc ci jamono yoyu motax bo xolé euh li ben journal journal Walfadjri la bo xamné ne day wax ci or hmm? oru Sénégal oriental xolé fi ñu ngi fi bind ki journalu 94 la ñu ngi fi bind accusation querelle et accusation autour de 30 tonnes d'or donc depuis 94 état bi ñu ngi am ay coowal 30 tonnes d'or lii lu lëndëm la woon lu ñu doon leeral la ay luubal ak ay dil la woon li mais lii xam nga yii bu demoon ci développement Sénégal kon passé nañu fii waaw 30 tonnes d'or donc lii day wane ni kii tam journal bi maa ngi ko denc boobu ba tey plus de 20 ans donc ça veut dire que ci jamono yooyu laa ci intéressé woon ci laa ci doon gëstu kii beneen journal la de cette époque bi 4 non bi 97 bi 94 déjà on parlait de de bataille xam nga bi querelle et accusation autour de 30 tonnes d'or Nous bataille autour de 70 milliards 70 milliards ou 94 euh, comprendre nga te yii ñi nga xam intellectuels dañ

ak journalistes citoyens yëpp ak journalistes yi war nañu demander des comptes directeur Petrosen directeur des mines les ministres les autorités ñu prononcé wu ci man yi may teg ci table bi te ñoom ñu ni pat comme si loolu amul moo tax tey ma ñëw ak ay pour wan leen ni li may wax yëpp du am ay firnde la comme ça débat bi au-delà de moi ñu interpeller autorités nous ñu leeral ñu lan mooy suñu koom-koom ak fu muy dugg lu ñu ñor dafa am dafa am loo xam ni dafa am depuis moment bi nga commencé def sortie di expliquer si wàllu pétrole bi euh, ci wàllu ressources minières yi euh, coow lu bari dafa xew ci euh, découverte yi. Mhm. ak ak bërëb yi nga xam fa lañ ko découvrir mhm. yu mel ni comme ay Touba Thiès Diourbel yu bari Saint-Louis mhm. ak permis yu bari yoo xam ni ci biir dafa xew dafa xew mais dama comprendre dafa am lu ma xam ne vraiment bëgg naa ci leeral mooy donc si on a compris depuis depuis régime yi fi mus a jaar yëpp ils étaient conscients que le Sénégal avait des chercheurs, comme le pétrole, comme pétrole am na yu bari yoo xam Sénégal connaître un coup d'arrêt après 1992. Si on bu le pétrole et pétrole gaz mais or ne peut pas exploiter. exploité phosphate bi mosuñu koo noppi exploité ak yeneen minerais mais le pétrole et le gaz il faut connaître coup d'arrêt en 1992 seul gaz bi mo continué won ñukay exploiter à partir de 96 ba jamono ji 96 ba légui ñu exploiter gaz Gadiaga té gaz bi dañ ci dal parce que forage ndox lañ doon lañ doon bënn gaz bi bal, ñu xamni fi amna gaz ñu fàtt ko après wa Petrosen ñoo réaliser sen premier projet té puis boobu Petrosen moko réaliser réalisé mais ay sociétés étrangères ñokay exploiter ci Tullow Oil ak Fortesa xam nga donc euh, euh, ma ngi leen di baxé vidéo bi bu ngeen xoolee image euh, c'est en noir et blanc c'est une vidéo qui date de 1960 vidéo ina.fr ina mooy institut national des archives de France donc irréfutable yéen a ngi gis euh, forage u puits pétrole bi bënn na. mais li fan la woon exactement ci Sénégal. Diamniadio. li Jam niajo. Jam niajo. les années. 1960 gis ngeen euh, puits bi bënn na bu ngeen seetloo torche bi mooy tàkk nii ci kaw gis ngeen tubaab yaa ni les investisseurs ñooy genre Franck Timis yëwoon gis ngeen membre gouvernement bi nii ñëw ak seen oto euh, mag yi danañu xàmmee ay Ablaye Fofana Seck ak Alioune Badara Mbengue ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ci gouvernement Senghor ñu ni nii li firnde la lii image yi xam naa ni dina bett ñu bëri mais depuis jamono jooju bi torche bi tàkk ci kaw moo lay won ni lii exploitation

yalla wàccoon ak na parce que yalla dafa monde a de bi la jox xam-xam bi mais ñun la jox kom kom bi am-am bi bi xam-xamam kese du meuna dem mënul tal centrale nucléaire té amul uranium amul zircon fi lako yalla def mënul am alal te amul or fi lako yalla def minerais yi ñuy soxla ñom yépp fi lako yalla def donc séddale bi mët donc ñun buñu importer technologie wala ñu def coopération gagnant gagnant mais dañ ciy parce que Sénégal a na ay ressources naturelles abondantes am na ressources humaines de qualité nit ñi jàng nañu xarañ nañ kon bu ñu boolee ñaar yooyu war nañu mën ci situation bu mais pour peu que ñu bëgg réew mi jiital intérêt réew mi. suñu mbokk internautes yi yéen a ngi ci euh, seen chaîne Abdou Karim Gueye YouTube euh, ñu dalal tey Clédor Sène di waxtaan ak ci ressources minières yi Sénégal.

exploitation mom dafa jeexal ay terre bokul exploitation bokul hmm. exploitation mom il faut ñu comprendre ni moy ñëw di jël di yob hmm. di ko utiliser exploitation moy set hmm. pour xam ndax am na amul. léegi nag entre technologie bi toll na foo xamante nii léegi boo seetee satellite sax ñolay wax fu am pétrole fu amul pétrole. léegi nak li ñu jàngat ci affaire yi moy li tax ñu ma insister ne il faut ñu def ko vidéo moy dafa am yu bari bari yoo xamanteni dafa am Sénégal te bu léegi ba au moins aujourd'hui par askanu Sénégal dañ leen ciy lëre xamuñu ko ñu war leen ko léral ñu xam ko. c' est très important ba pare ressources yi nekk Sénégal dafa nekk loo xam ne Sénégal war a nekk réew moo xamante ni waratul ñàkk dara waxtuma laa ñuy daax ay 40 000 étudiants ba duñ jàng waxtuma laa ñu nekk ci ay jafe-jafe ndox waxtuma laa ñu nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe ay courant wala ñu nekk ci ay jafe-jafe lu ñu dundee ndax réew mi am na lépp loo xam ne yàlla mën na ko maye lu nit ñi di soxla ci wàllu technologie lépp luy ressource minière am na Sénégal lépp dañ koy commencé grand dama bëggoon rek nga dimbali ñu vite yan xéwal la yàlla feeñal Sénégal ci suuf si ak ci géej gi maanaam lu ñuy wax jéeri jéeg géej jéeg y a yan xéwal ñoo fi à part pétrole ak gaz. waaw pétrole ak gaz sax xam naa moom la ñuy mhm. mais li ci li ci li fi feeñ bëri na bokk na ci tourbe li tax may citer tourbe tout le temps lii euh, fiche ministère des mines direction des mines et de la géologie C'est une fiche numéro 17 fiche numéro 17 ministère des mines et de la géologie donc lii tourbe bi daf fi feeñ depuis les indépendances kenn mus koo exploité ba comme faire bi ñu ngi ko joxee bërki Dembo Ndiaye mais ba léegi kenn mus ko exploité te lii dafa am solo bu bari bari bari bari bari pour Sénégal parce que gis ngeen di ngeen gis teug yi di booyalee ben genre xéer mm-hmm. c'est de la tourbe ko bu xasee tak jeex na loolu mën na remplacer këriñ bi nga xam suñu all bi ñuy gor té ñun pays sahélien lañ ñu ngi def ay politique ay ay muraille verte ak ay dugg ci ay organisme pour sàmm suñu pour freiner avancer désert beeg yooyu mais li li gën gaaw ci li kay freiner mooy ñu bayyi kërign bi ñuy dam dagg di ko def dika def di ko def boyulukaay ak ak matt mi léegi tourbe bi mëna remplacer lool té li fi nekk ci Sénégal toute la grande côte manam Dakar ba Ndar àll boobu yëpp ay gisement de tourbe la Casamance yëpp gisement de tourbe la te nee Casamance rek mën satisfaire li Sénégal pendant 50 ans waxtuma laak nag li nekk Grande nga comme boy source de chaleur dañ ciy courant kon centrale à charbon bi nekk euh, Saint-Loup, boobu moo doxal xam nga indépendance ba ñu ngi centrale à charbon mais mais mais tourbe est donc mën tamit courant mais li ci gën a intéressant mooy mën nañ ci defar aussi tos engrais organique parce que dañ koy dañ koy jëfandikoo pour pour dekkil yenn suuf yu dee yi nga xam ni dañ dañ dañ koy bayee bay ba amul wala mu am xorom wala mu ñàkk éléments yi nga xam ni mooy meññal mm-hmm. donc dañ koy utiliser dans l'amendement des des sols arabes loolu aussi lu mën a dimbali mbay mi la ci lu bari bari, bëri bëri bëri surtout ci jamono ji ngay ji ñuy wax ay agriculture bio parce que nit ñi ñu ngi daw ay engrais chimiques yi te ñun amna ñu lu organique lu naturel lo xamné lu bëri bëri bëri bëri mën na ko régler donc dañu créé won société des tourbières du Sénégal compagnie des tourbières du Sénégal plutôt depuis jamono Abdou Diouf mais musul def dara. musuñu ko utiliser ko utiliser siège mu ngi nekkoon fi Sorano direction de la mine et de la géologie fu mu nekk Ablaye Wade ñëw dissoudre ko créer Carbomine mais Carbomine tam ba légui gisuma.

métaux lourds moy zircon ilménite ak titane manam zircon euh, ilménite TITAN titane ak euh, rutile rutile une matière la bo xam dañ ciy defar ay ay peinture ak ay yenen matière donc lolu qui fiche numéro 12 bu direction des mines la dina len ci lire lo xam euh dina len xaw bet parce que nenañu euh zone diffère avec Joal exploité société euh, minière euh, Somiga ex Gaziello euh, exploité en 1960 zircon. 1960 1960 exploité nañ fa zircon. ils ont été exploités nous, ngi nga liiral ils ont été exploités dans les années 1960. par la société Gaziello. Mhm. notamment dans la zone de de Joal différent. waaw xam nga loolu boo ko waxee waa Joal ko Joal am na zircon té bi nek ci Petite Côte bi nak mo gëna intéressant parce que fofu dañ ko dëkk dañ ko def ay tool mais fi dafa leru géej gi mu nek ay dun yo xamni amul dara donc fofu mo gëna a jëfëndiko mais Sénégal fépp am dara donc zircon newoon naa mooy premier alalu Sénégal gannaaw or ak gaz donc zircon li tax mu nek premier alalu Sénégal dafa am importance la technologie de pointe parce que nous avons utilisé utiliser euh, industrie aéronautique madame avion aérospatiale navette spatiale fusée yi les ci jaww ji ak satellite ak technologie de pointe parce que dafa am des propriétés yu nous doy doy waar yoo xam ni rek am ak minerai bi muy àndal titane est-ce que xam nga titane dañ le titane wañ go am na benn avion euh, bu américain yi créé bu tudd Blackbird bo xam ne kenn du ko détecté bu ñuul kooku nii euh, euh, titanium lañ ko defaree alliage bu ñu defaree ak titane oxyde de titane léegi titanium boobu moo gën résistant acier Fouf ba noppi gën ko oyof sept fois titane boo ko sànnee ci ndox sax lay flotté moom la ñuy avion yooyu ak gros porteurs a330 et 380 et ak euh, cargo titanium lañ koy parce que moo gën woyof aluminium mais mo gën a cher 15 fois mom ne am ñu mo and ak zircon ñun zircon rek wax 2 euh, de zircon ci ci sable titanifère Il am nañ 66 de titane mo ëpp zircon bi fouf en volume ci li exploiter exploité mais kenn du ko wax léegi importance am laa lay bëgg a woon foofu léegi bu fekkee ne dafa oyof avion bi économiser en carburant poids am bu oyofee la muy consommer ci carburant day gën a donc lu ama ama am solo la te day am am am résistance boo xam ne dañ koy soxla ci confection pièces yu mel ay réacteurs donc zircon tamit même chose la parce que dafa supporter tangage jusqu'à 1950 degrés du dilater ou du changer changé intact donc on a le boo ci defee ay pièces d'assemblage yu mel ni ay écrou ay rivet sax je euh, euh, euh, rek qui mën de ci réacteur ou ci biir fuy tang Il en même temps conducteur électrique comme Wenye, mais bii supraconducteur parce que c'est mille fois plus conducteur que le cuivre bi nga une référence en électricité ci conductivité donc l'ordre permet d'imprimer nga graver ay circuit intégré qui ay points point chaud, mel réacteur nga xam ni des paramètres de vol day électroniques sa électronique de bord nga mën contrôler ce réacteur nous comporte, ce moteur nous comporte. comporte pas. C'est amul problème L'Europe, Europe centrale nucléaire nous fait le courant parce que nous fait le courant centrale nucléaire uranium lay L'uranium, euh, uranium am a ko tamit maa ngi après fiche euh, numéro 17 bu direction des mines et et de la géologie mu uranium Sénégal am na uranium mais il n'y dama a pas ci zirconium Donc, ba euh, donc courant bu bëri bi ñuy soxla centrale nucléaire qu'est-ce que je veux dire def centrale nucléaire l'uranium est utilisé parce que l'uranium, 10 grammes c'est day tonne une tonne pétrole boo boo boo brûlé boo lac. mais l'uranium, boobu mënoo ko définir comme combustible te dugaloo ko ci benn genn benn mbar bu nekk en zirconium est zircon bu ñu def parce que zircon dafa am euh, bu friable ak bu solide ñu naan précambrien friable précambrien solide euh, bu friable boobu moom la ñuy togg mu nekk benn alliage de zirconium parce que boo ko toggee rek day oxydé wu moo tax dootul a zircon mais zirconium lay tudd day doon comme weñ bu inox mais moo gën a inox fuuf fuuf fuuf fuuf ba noppi gën ko résistant à la chaleur 1950 degrés te four mburu yi ay 300 degrés la. te lay radiateur avion quoi waaw léegi euh, réacteur u euh, centrale nucléaire. nucléaires. centrale nucléaire. centrale nucléaire zircon rek moo fa mën nekk. Euh, uranium bi amoo foo ko def. uranium bi que nii mënoo ci il faut nga def ko ci ay tubes en zircon pour mu dem dans le cœur du réacteur ay tubes yu goudou la yu ay ay plusieurs mètres nga xam ni ré cœuru réacteur bi y a ay pax léegi pax yooyu lañ koy dañ ciy dugal uranium bi ba pare ñu tu ko ci pax yooyu cœuru réacteur bi 700 degrés la les zircon à 1950 degrés amul benn problème donc moom rek nga utiliser comme réservoir genre réservoir uranium là, comme réservoir à uranium pour alimenter këru centrale nucléaire Donc, doog a faire courant courant bu bëri boobu européens yi soxla pour sa consommation donc union européenne 25% mu 25% nii zircons ci zircon bi Fille Sénégal minou jogo bi à ñu ngi ko commencé 2013 mais ñu ngi nekk troisième producteur mondial de ce minerai troisième producteur té une mine de classe mondiale que nous lañu sur trois de classe mondiale yu nekk diggante Dakar ak euh, Saint-Louis jëwriñ Djokou à l'entrée de Saint-Louis donc nous avons une réserve donc en potentiel minier la centrale nucléaire uranium tam ñuy zirconium mais moy aussi les armes nucléaires industrie militaire da les soxla tamit kon sax yenn missiles yi les pièces pièces ñu soxla ci deuguer zirconium bi ak titanium bi andu ci parce que technologie de pointe donc ñun xamuñu njëriñam xamuñu njëriñam mais nguur gi xam nañu njëriñam donc loolu ñu ngi troisième producteur mondial mais xam nga ñaata la direction des mines wax par an un milliard 700 milliard laa wax de ñu ne zircon ñun liñ ci am un milliard sept Sénégal 1 million 700 mille francs lay am ci moom mooy troisième production. Euh, xam nga Sococim Sococim. Sococim lu muy euh, euh, redevance. Mm-hmm. ci ciment bi muy produire presque 22 millions 21 milliards milliards laa bëgg wax lu ma jum 21 milliards. xam nga mol 1 mol 2 plutôt lu muy dougal, par mois waxuma la par an 400 et quelques milliards 400 milliards milliards laa la wax de. 400 mm-hmm. milliards. Mol 1 Mol 1. zircon ak importance bi mu am yëpp. mu dugal un milliard euh, ñu ne kii bi nu mu tuddati euh, beneen bi euh, titane bi mooy mooy ilménite bi ñu ni boobu un milliard deux xam nga loolu wax sa askan lu dul dëgg la mais loolu man am naa liggéey bu ma ci def boo xam ne day gën a xóot waxtaan dama leen di woon firnde yi.

courant day manquer. Europe Europe courant mu ngi minou ci miinu jogo bi fi mu Europe courant mu ngi dépendre courant ci ci 25 pour cent bu manquer ci sen production jeex dañuy am rupture dañuy am problème té qu'un ken xalaatu fa délestage donc lolou léegi uranium bi bi bi centrale nucléaire yi di soxla fiche numéro 17 bu direction des mines et de la géologie mon équipe ni ni c'est les documents de l'État D'où man manque bind Nous euh, que depuis depuis Sénégal oriental 1975 hein, entre 1975 et 1985 faut commencer à rechercher intensivement l'uranium pour gis ko fa ci produire environ 2000 tonnes d'uranium avant d'arrêter l'exploitation. exploitation à partir de 2007, à la faveur d'une flambée des cours de l'uranium, le détenteur du permis de recherche de Saraya Est, la junior sud-africaine Uramine, le Areva Gind, a été racheté la même année par Areva ex kogema Cogema euh, commissariat général à l'énergie atomique de France bi nga xam le plus affaire atomique euh, etc.

Euh, Sénégal oriental a un euh, euh, gisement de fer de la Falémé Nous avons ko 700 millions de tonnes pour comparaison Mauritanie nous avons une économie Mauritanie ñaari le fer bi à Zouérat ak seen géej bi ñaar moteur ñoo ñoo économie Mauritanie

man dem naa Kédougou fël benn xeer mu ni karang am bruit résonance wañ ma jël wañ dóor mu am résonance wañ xeer bi day xuur gis nga euh, diggante yenn pour ñu dëkk yenn tubaab jalaw ñàngal côté boobu ba Popenguine géej gi dafa am côté yoo xam ne dafa am falaise bu ko tiim récif récif yooyu xeer yooyu yëpp ay lignite de fer la xeer yooyu boo ci jël boo ko sànnee bruit wañ lay def dafay tamit même chose que je ma a am il tamit am na dindi impureté donc impuretés. Donc, comme bu mais barki Dembo président Macky Sall jox ay turc le président Macky Sall yagna dox mbirum Sénégal oriental euh, dama ci yor ay vidéo privées yo xamné ne ba mu nekkee ministre des mines la demoon fofu and ak Ousmane Ndiaye biñ jox COS pétrogaz koku moy moy moy coaché Macky Sall moko ko ci piste moko ko ci yoon parce que koku lu mu xamul ci mine ak énergie amul ci kàngam yi Sénégal yu gëna a mag yi Sénégal am ci domaine bobu ci lo bok mais xaritu Macky Sall ben bakkan la man dama train yag suivre Afrique du Sud ñu avons fofu fer qu'il faut faire. bi mu li def moy négocier ak ArcelorMittal bi nga xamné état du Sénégal daf ko toppoon tribunal tribunal bi ñuy wax euh, euh, CIRD yi ñu le tuddé cour de Paris ñu condamné ArcelorMittal pour mu fay Sénégal 5 000 milliards de dollars. 5, euh, euh, milliards de dollars. Moi, 2 500 milliards sur CFA. 2 500 milliards. Le président makissal dem fait des transactions euh, pour le Sénégal 75 milliards. Balenium, tu suis tour, tu 2 425 milliards. Ce qui est spécial spécial, parce que tu a fait un texte, ça. Euh, texte CIRD parce que ñun dañu adhéré ci cours depuis 1967 ci un décret bu 67 517 xam nga bu bu Sénégal ratifié bu yag, te dañu ni atte atte cours boobu dafay imposer au parti et c'est immédiatement euh, exécutoire dañ koy exécuter donc ay négociation sax prox loolu négociation sax waru y am moo tax agent judiciaire de l'État bi njëkk démissionné parce que beaucoup woon cautionner loolu une femme digne la y ay patriotes yu Sénégal quand même des nañ donc moi, euh, faire bob, alal bu bari bari bari la euh, joxé nañ ko suñu richesse la bi tam euh, marbre à Ibel ay montagne de marbre à Ibel marbre bobu ñu ngi exploité je ak pierre ak marbre bi fa nekk yooyu yëpp foofu la jóge mosquée Touba marbre bu rose ba fa nekkoon jamono yi Madické nekkee ministre des mines et de l'énergie foofu la jóge Madické moo ko lijjanti suñu marbre ñu ngi koy exposé fii nit ñi xamuñu ko euh, gannaaw marbre bi tam dama bëgg a gaawantu parce que ñu ngi jël temps le Sénégal produit aussi du verre verre Sénégal produit depuis 2013 2012 2013 dafa une société bu euh, la société africaine du verre la SAV nous avons eu permis en février 2012 président Macky Sall ñëw euh, géré nous produisons par mois 140 000 tonnes de verre par mois Les verre Euh, brésilien yi dañu def précontrat ci verre boobu amul jaay kenn comme oru Sabodala bi àgguñu ci or bi xam nga or bi day dem directement Genève amul kenn déggoo suñu tëgg yi di kaas ni mënuñu jot ci suñu or yi or or bi day dem ci Genève lay dem directement aéroport fii lay aw alors am na lu dul aw sax aéroport léegi euh, brésiliens yi dañu signé 85 de la production de verre du Sénégal verre amul kër bu manqué matériaux de construction personne ne peut s'en passer vous dans les grandes métropoles de yu Dubaï aux euh, États-Unis partout immeubles en façade de verre au Sénégal vous avez une peinture façade après ñuy def bis, après ñuy def coquillage après ñuy def carreau léegi la mode est au vert bu ngeen seetloo Dakar yëpp immeuble yu bees Façade, façades yi c'est des façades en verre da ngay doo yenn saa doo sax mur bi tu vois que du verre c'est pas importé c'est notre verre qui vient ici de Diogo verre li ñu koy est-ce que xam lu ñuy defaree verre Souff. Souff, la ñuy defaree verre mais pas suufu koñ bi nga xam ni xëy a am na ay résidus ciment ay résidus chop, ay résidus ay ay ay saleté ay déchets mais suufu dune xam nga dune dafay set c'est de la silice pure silice donne du doñu souf, euh, moom la ñuy togg euh, jusqu'à euh, plus au-delà de 1000 degrés dafay liquéfié wu dafay ndoxe léegi boo beaucoup soufflé dafay refroidir nekkaat verre des vitreux léegi ci la ñuy defar ay verre plat comme panneaux, par pare avec yeeg creux comme bouteille carafiers euh, carafe y des euh, affaire yi léegi SAV ils savaient ay verre plat ak verre creux verre creux ba exporter parce que 15 ils des rek moom ngay gis ci bâtiment yi ci immobilier. les te immeuble yooyu boo ci droit c'est des immeubles qui appartiennent au pontes de l'ancien et de l'actuel régime Ils sont ñoo ko man je crois que loolu moo tax débat yooyu duñ ko poser parce que Sénégal euh, des produits verts man dégguma ko ci espace public bi donc loolu loolu lu nekk en production la te lu fi bëri la te 15 pour cent bi rek moom ngeen di gis ci immeuble fi 85 pour Brésil lay dem. que loolu ñun bu ñu ko jaayoon naar yi nga tout le temps ñu ngi tabax loolu rek la ñu soxla vert ak marbre on a du verre on a du marbre au Sénégal oriental c'est beaucoup d'argent mais ñun dañu nangu am 10 de tout ça la ci des ñu jox ko.

pétrole c'est-à-dire léegi dama bëggoon grand euh, vite fait parce que xamna ni euh émission bi daanaka émission bi mi ngi day am de bi moy première partie mais dama bëgg première partie dañ koy tëj ak euh, pétrole bi ak hmm. permis hmm. ak exploitation yi c'est-à-dire hmm. permis yi nga xamni ne jot état bon li wër bu wër ma wax ko bla ñuy sori moy régime bu fi mësa a nekk dundee nga pétrole du Sénégal foowee nga ko nax askan wi te askan wi ko loolu moom amna parce que imagine fi ñu fi wane gis ngeen ko depuis 1960 la ñuy exploité pétrole Sénégal ci top ci ndigal tuba bi mais ak régime bi fi ni euh dafa coowal pétrole dafa jóg mhm. bari ñi di wax pétrole fi ñi di wax pétrole pétrole ba te président bi li tax mu uteeg yenen président moy dafa jël frère am jox ko permis mu mu yor mu yor entreprise pétrolière bo xamni dafa nek ci réew mi mhm. donc lool mo tax lool nak mo gëna a yëngal coow mhm. tay grand buñu ñu ñëwee ci wàllu pétrole Sénégal nan la fa démé exactement ci côté permis yeeg exploitation bi guddi ñu toll nii ak lan la ci Sénégal di bénéficier

le pétrole c'est vrai il y a au Sénégal euh, mais l'exploitation, c'est une exploitation industrielle comme le diamant ñu exploitation wax de l'exploitation. exploration exploration bi tam résultat yi jamono ji parce que nous avons ñu évolué euh, y a évoqué affaire pétrole. Légui, qui moy carte hydrocarbures au Sénégal Madame, hydrocarbure pétrole et gaz parce que ñaar yoy ñoy faral di Hmm? Légui li ngeen gis ni ay permis ñu joxé la te ci nguuru Macky lañ ko chaque couleur ben société moko couleur rose bi ñaar yi Casamance ak Saloum Tende Oil lañ ko jox Tende mi nga dañ ko Roumanie 7 ans lañ ko

en rose. rose waaw léegi euh, bi nekk nii ci digg bi. Euh, beige. c'est le bloc de Diourbel. waaw bloc de Diourbel la. mooy mooy bi def émission bu rectangle donc bii ci kaw a kaw nii mooy bloc Louga bloc bu bi AZ Petroleum lañ ko jox. bi ci kaw mooy bloc Louga euh, benn société bu T5 Oil lañ ko jox.

Les région de gender et de et de Thiès gaz mais dañ ko société bu les amis de Macky euh, euh, Pierre Marouane Hamé. Mhm. alors euh, les ci jéeri qui ci ci ci mhm. permis plus de 14 permis ils ont nous jox nañu Orix Petroleum jox Oranto jox nañu Far Limited Philips, Woodside Cosmos Energy bëri nañu bëri nañu ak Elenilto Elenilto euh, dinañ ci def émission spéciale parce que ay israéliens lañu dañ leen euh, plus de 7000 kilomètres carrés euh, de nappe pétrolifère fi en Casamance ba fait nangu contrat bi ñom tam ñu ngi en contentieux ak état du Sénégal euh ñom ñom le groupe Onomo donc Elenilto nous ci def taxaw seetlu une euh, firme israélienne qui a bu ñu jox permis pétrole ici, en Casamance euh, plus de 7000 km2 de pétrolifère boo xam ne dafa am avec ak Sénégal parce que bokk na ci permis yi Macky Nous euh, ñoom un moom groupe Onomo gis un hôtel Onomo bi nekk un aéroport gis nga hôtel Vous gis nga fa ou wala balcon hmm? mais façade pour pour beauté architecturale pour éclairage et aération mais façade Bob loo fay rien du tout donc nous avons euh, nañu taxaw ci ci ci ci société boobu le groupe Onomo et Elinito wax leen li nekk ci parce que Sénégal li fiy xew nit ñi mënuñu ko sax njort c'est grave donc à part nous, euh, Cosmos Énergie euh, ak BP bi yor le bloc bi ñu Timis Corporation bloc de Kayar ak de Saint-Louis mhm. donc euh, bloc de Kayar bi ak de Saint-Louis bi euh, yag nañ ko trouver parce que la First Exchange Corp ci document bi mu leen njëkk le papier de 93 mo defoon les travaux euh, de recherche et d'exploration First Exchange Corp américain lañu travaux travaille la en 91 L'église Jeune Afrique économie en 1997. Euh, Sénégal Eldorado. minier. un paradis minier. de 87 déjà 97 plutôt déjà L'église, fille les 97 1997, Jeune Afrique Économique, de 1997. Plus de 20 ans, j'ai gardé ce document-là parce que ça m'intéresse. Donc, l'Oulégui là intéressé où tu débat pétrole, euh, ressources minières, tout ça. Pas au monde, mais c'est fait. Euh, te di ngeen xam lépp Inch'Allah. donc ci la dit wax ni euh, Saint-Louis à Kayar bi découvrir à Casamance 91 des découvertes ont été ont été faites depuis 1991. Wow. nous confirmé le potentiel parce que First Exchange Corp euh, le euh, euh, euh, depuis 1987 déjà mais 91 Dumto day évolué ci la confirmé le potentiel mais mais grand prix, nous lan une lan autorité nous xam dañuy wala état gouvernement pour taxaw dévoiler Sénégal a des ressources humaines

Les day yokk day essence glace parce que les teet aussitôt indi jën buy pat pati léegi day dem def ñetti fan ba juróomi fan xam kañ lay glace donc ils ont njaba ay parce que fii amatul Wow. waaw des gens parce que permis licence

jën yu mag yi bu ñu gisul lu ñu lekk dañuy gën a dem ci biir moo yi aussi day indi ay problème jën bi day ñëw cher duñ ci jot wala ñuy am ay jën yoo xam ne du am bopp du am genn du am der ay tëll yoo xam ne doo xam lu mu yooyu la ñuy lekk léegi léegi jën bu baax bi tubaab bi jël ko jox suñu nguur ay milliards donc suñuy nguur aussi bien ci ressources naturelles yëpp minière ak yëpp ci yem mosul dox ci intérêt Sénégal parce que ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp c'est l'essentiel mais xool leen Sénégalu tey nous ñuy tabax ay immeubles futuristes. Dakar ñuy grève di manifester pour ndox bu ñu naan ndox bu ñu naan mënoo ko assurer faj nit ñi mënoo ko assurer bourse étudiants problème la foog bakken rot fay enseignants problème la mais lolu grand lolu loolu dafa yàgg ci dafa yàgg ci Sénégal. mais du parce que li ñuy wax ni depuis Sénégal bu amee indépendance bi amul benn régime boo xam ni. géré na lii mu të mu tënk. man daal maa ngi ci leader politique yi maa ngi sàkku ci presse bi parce que presse moo war a former l'opinion par l'information vraiment ñu impliqué wu ci débat public bi wala ñu jox débat public bi un contenu économique mhm. et un contenu de problèmes liés aux questions de développement. Mhm. débat boobu la ñu soxla Sénégal parce que lu bëri dafa war a leer. Sénégal dafa war a naat dafa war a neex lépp a ngi fi te dara jëriñu ñu lu dul ay nguur lay jëriñ ak ay tubaab loolu moo fi war a jeex. askan wi dafa war a yeewu gannaaw bu mu war a yeewoo bu ñu ko joxul àqam day wàcc foqati parce que du yoon ay minorité ak seen famille di dundee ñun ñëpp bokk. yaa ngi évoqué léegi blogu Saint-Louis bi président Macky Sall jox euh Aliou Sall moom ngi ñëw pouvoir mu ngi prêter serment avril mai juin 19 juin mu signé ñaari décret 2012 596 boobu sax rocc nañ ko ci internet ak 2012 597 jox ñaari bloc yi Franck Timis ak Aliou Sall deux mois après son accession kon koku nekkoon directeur des données de Petrosen nekkoon directeur Petrosen at ministre des mines et de l'énergie nekk premier ministre consignataire des décrets mujj doon président xam na li fi am. moo tax deux mois mu jël loolu jox ko rakam. inspection générale d'État ni déet bul ko signé bul signé décret d'approbation bi parce que baaxul respecté wul intérêt Sénégal ba noppi ni ñu joxee permis bi jaarul yoon. de defuñu évaluation société bi dëppoowul le code pétrolier mu gaawantu signé quand même 9 juillet 19 juin le signé 9 juillet Aliou Sall créé Petrotim Sénégal xam nga Petrotim Limited moo amoon foofu la ñuy naxee nit ñi créé Petrotim Sénégal SAU société anonyme uninominale ben nit moo fa gérant Aliou Sall les gars ils ont bind turu gérants turu turu gérant yi sax ci ci société yi créé te ay ay ay ay ay standard de transparence moo ko

moy alal bi Sénégal ëppale ci walu pétrole ci walu gaz plutôt parce que 50 000 milliards de pieds de gaz mo fa nek ci réserve yo xam dañ ko xayma rek te man dama japp ni du gaz bobu la jox Franck Timis ak Aliou Sall pour ñu jaay ko dañu spéculer ci permis parce que ñom du ñom ñoko exploiter lañ ko Cosmos ak BP lolu yow buñ la ko jox le permis ni la jaayal nga deux ans ñu bind yeneen ñaari décret pour yokal la pour nga mën am client 1154 euh, ak 1155 13 avril 1900 2000 2013 ñu yokkal leen pour ñu mëna jaay Cosmos ak euh, euh, parce que bobu dese nañu 30 pour cent boo xam ne xamuñu fu ñu koy jaayaguñ ko. ñu yokkal leen ñu def seen deal ak BP ak ak ak Cosmos ñun lépp la ñu xam léegi ñaata la ñu jaayee nous dañ ko mës a lijjanti. lan la ci Sénégal perte loolu dinañ ko mës a mais li am ba lèr moy c'est c'est une haute trahison dossier Petro-Tim parce que dañu jalgati intérêt Sénégal au profit d'une famille et d'un clan l'olou mo moy li lèr Sénégal té nit ñi bu ñuy wax wax bi dañuy wax Aliou Sall Aliou Sall mais kan mo signé décret yi kan mo signé décret mhm. inspection d'état ni le dette code pétrolier bi mayu la intérêt Sénégal mayu la nga signé c' est le président Macky Sall. kan moo la période initiale de recherche bi c'est le président Macky Sall. Karim Wade lan lañ ko doon topé xaalisu jàmbur xaalisu naar bi xaalisu bii boobu bourse hein? ñu ni xaalisu jàmbur bi ki sa prête non la ñu miim dem dem loolu Légui nak Macky Sall est-ce que ñu ni Aliou Sall prête non la d'autant plus qu'ils sont liés par quatre décrets quatre décrets dafa dafa dafa dafa doy waar loolu. te loolu lu lu Sénégal di lijjanti la lu Sénégal di lijjanti la parce que alalu Sénégal. parce que BP ñun xamuñu ñoom ñaata la ñu mais BP bi mu bëggee ci capital bi 27 27,49% cent Cosmos jaay. te Cosmos waru ko jaay directement Sénégal mooy prioritaire bu renoncé droit préemption am day am luñ ko ci dàmp ci ay milliards loolu xamuñu ko tamit ñaata la déclaré wuñ ko feeñul fenn mais BP nous avons 960 millions de dollars 916 millions de dollars à titre de prise de participation pour le ci capital plus 2 dollars de bonus par futur baril produit baril liquide produit dans la limite de 1 milliard de barils 1 milliard multiplié par 2 dollars 2 milliards. plus 916 millions c'est presque 3 milliards de dollars pour 27 d'actifs 27,49 d'actifs Bon, 30 d'actifs. gannaaw 60 yi mu njëkk jaay ka ka ka jël ci 60 am ka jël ci 60 am jaay jaay euh, nu mu tuddati euh, Cosmos euh, kii bépp mais moom ñaata lañ ko ñaata lañ ko jaay kooku 27 am rek jaay am na ci 3 3 milliards de dollars muy au moins 1500 milliards CFA léegi ñun 90 pour cent yi ñu leen jox. xam nga bonus de signature bi ñaata la un milliard cinq cent ñaari yoon muy trois milliards loolu lañ ci am transaction yi nee nañu waruñ ci am dara mais loolu naka la ko Sénégal mën a nangoo mu ngi ci kayit yi mu ngi ci contrat yi mu ngi ci contrat yi tey dama leen indil sax contrat contrat pétrolier bii contrat bi ñu jox total la parce que daf ci am bii haute trahison la tamit bii bu bees tàq la bu tooy xepp la deuxième bu ñu jox total xam nga amna na benn bu amone coow ba Thierno Alassane démissionné mhm. mooy Rufisque deep offshore bi te Frank Timis attaqué len ci euh, tribunal bobu ñuy wax mhm. te Frank Timis day gagné day gagné dé day gagné total gaawantu na jaay ci 30 xam na ni permis bi baaxul léegi ca gannaaw ga lañuy jox li ñu ci géej yépp total. 65 000 kilomètres qui ci contrat bii te contrat bi dafa am lu musul am ci ben contrat parce que bonus de signature lañu xamone. Té wa Petrosen que nañu bonus de signature c'est illégal mais contrat bi xam nga lan mo ci nek 5 milliards lañu joxé. xam nga maa ngi lay wax euh, <laughs> 1 milliard et demi lañ joxé deux fois 3 milliards parce que Kayal ak euh, Saint-Louis parce que ñaari permis 5 milliards lañu joxé buñu signé contrat bi mais li musul am bu président Macky Sall signé décret d'approbation bi a fait 5 milliards dama bëgg lillahi wa rasulihi journaliste du Sénégal homme politique du Sénégal député opposition bi ñu laaj waa Petrosen ak waa nguur gi ci ban contrat ci ñu jot a xaatim yépp la ñu joxe xaalis ci décret d'approbation parce que ñun bonus de signature lañ doon dégg gannaaw bu ñu signé contrat mais bii dañuy joxe ci contrat bi ba noppi joxe ci signature décret suñu président ñun signature am ñu ciy joxe xaalis maa ngi koy doog gis ci contrat bi te mu ngi nii ma inséré ko au montage mu leer ben 5 milliards pour tabax ben institut du pétrole bi mu On euh, la ñu bind ko rappelé ko contrat euh, conformément à l'annonce du chef de l'État le 16 décembre etc donc ça veut dire que mom la bëgg la wax mom lay def ko loi donc ñu joxe 5 milliards mais benen 5 milliards tomber à la signature du décret d'approbation loolu nous suñu décret décret 5 milliards musul am Sénégal musul Sénégal Nous ngi donc pétrole bi lépp mënuñu ko wax gis nous ni débordé nañu ci temps mais nous avons Mais non dañu fa am suite ça lii day nous suite. fait jàpp dañu Nous dañu dañu un contrat yi par benn. Ah, mais dafa am am suite. ma point bu géej la benn point bu ci nek géej la bu ànd ak ay firnde. wa mais xam nga si kaw sen chaîne bi sen chaîne euh, YouTube Abdou Karim Gueye euh, Clédor Sène dañ koy jël ci bi day nek émission bo xamni yaatal la mais benn pàcc bu nek mo xam ci walu lepp lo xamni Sénégal joxé nako muy permis wala lo xamni xam ni ressource minière la ci Sénégal bu ñuy bu ñuy utiliser bo xamni ay entreprise entreprise wara yoy lolou inshallah rabbi dañuy fexe ba am Clédor Sène mu def ci ay rubrique ñu jël ko ay 10 minutes 20 minutes yoo xam chaque semaine dañuy dugalal benn chaque semaine dugal leen parce que dafa sénégalais yi ñoo war xam lan lañ am ak naka la suñu njiti di fowé suñu te ñun coono ñu daj ak ñu sonné ak ñu nekkee suñu njiti nekk di dëmm Sénégal ngeen bal ma ci baat bi donc loolu aussi mo tax tay man ma préféré won indi ko pour mu yaatal leen wax leen benn étape par étape ngeen comprendre li fi nekk yëpp en général mais dañuy dugg ci détails yi ci yeneen émission ça dañuy dugg ci détails yi parce que grand bi dama koy may rubrique ay rubrique yo xamni dañ koy am

légitimité la parce que loi bi loi C'est la constitution constitution bi les ressources minières appartiennent au peuple léegi lu safaanook loolu man sama yoon nekku ci parce que nous dañu teunk fi parce que ci sen code minier sen code pétrolier ak sen contrat dañu am ñom li ñuy wax clause de confidentialité muy article 66 du code minier bi mu ngi ni ñom liñ ci wax man mënuma cee faire. parce que nous bëgguñu nit ñi xam lii moo tax kenn du ci wax parce que dañu ni les confidentialité des documents et renseignements les titres. les documents et renseignements recueillis auprès des titulaires de titres miniers ne peuvent être communiqués au public ne peuvent être communiqués au public mm-hmm. au nom de quoi Nous, nous, nous sommes... quoi au nom de quoi ces renseignements recueillis ne doivent être communiqués au public nous ñun beaucoup ci kon te Nous, hein? ou au tiers tout agent de l'administration des mines qui a à connaître directement ou indirectement des informations et du contenu des documents et renseignements de l'activité des titulaires de titres miniers mon est soumis aux obligations du secret professionnel

du alam yu leer kon ñun duñ ñu tënk ci seen yii man maa gën a xam li ma ciy fekk yëpp waaye euh, pour ngeen ngeen xam pour ma mën leen servir man damay obligé du mooyu loolu tànqam lu loolu pour tegal leen ci taabal bi li nga xam ne ñoom dañ koy teg ci suuf cest à bu ngeen comprendre euh, que euh, article yi ñoom dañ ko xaatim pour tënk képp koo xamante ni maanaam nekkoo ci seen biir nga war a mën a wax ci wàllu ressources minières yi ak lépp loo xam ne Sénégal mi ngi koy jaay ba génne ci ay waaw cest loolu dafa doy waar parce que secret yi yëpp ngay gis euh, grand bi dafa fu mu ko jëlee foofu la ñu tëjalee nan la ko amee parce que aussi foog ñu laaj ko ko foog ñu wax aussi tamit ci grand affaire Touba bi bëri na coow trop xam nga te gars yi ñu ngi si ay werante xëccoo li ma bëggoon rek après boo ñu expliqué fan nga jëlee information yi nga wax ñu yan bërëb ci Sénégal ñoo am pétrole yoo xam ni de mhm. nga ni pétrole ba ñu xam ni fii nii wér ni fii nii exploration bi naa la ni pétrole am fi waaw léegi commencé ci question parce que pétrole bi yaatalu ko sax mhm. euh, parce que euh, ñun suñu alal bi ëpp ci gaz mu ngi ci blogu Saint-Louis bi ñu bokk ak Mauritanie ak blogu Kayar mais suñu alal bi ëpp ci pétrole

à travers cette femme-là je mu la dit, wax euh, euh, monsieur Inglis et euh, Emma Delaney. Emma Delaney moom. ñooñu ñoo wañ loxo Macky président Nar, pour ñu trouver accord pour nous ñu exploiter en toute tranquillité parce que gisement vous xam nga géologie. amul frontière. bassin sédimentaire nee naa la suñu bos mu ngi Guinée ba Mauritanie dafa yaatu même bassin sédimentaire bi y a am ci à cheval entre Mauritanie et Sénégal léegi loolu la ñu bokk parce que ñun suñu puits gëmbal bi dafa dafa nekk ci frontière bi trop xam nga euh, ba noppi euh, ci gannaawam dafa am yeneen ñaari puits yoo xam ne ñoom dañ ko foore ak succès ci côté Mauritanie Nous avons wax Ahmeyim 1 ak Ahmeyim 2 mais dafa am benn système de vase communicant xam nga boo gasee fosse septique nga croisé ne ko def ko ñaari chambre yu tolloowul nga def xam nga en général gars dañ koy def dañ koy tollale non pas sutante ci way ci way manam mu nek ben carré bi gën a yaatu xam nga ci la fay tajé ñooy tolloo niveau toujours parce que lolu moy système mu vase communicant niveau yi day doon ben mais bi gën a yaatu superficie mo lay ëpp cubage donc mo lay ëpp quantité comprendre nga gëmbal ak euh, axma 1 et 2 non la mel gëmbal mo gën a yaatu ba noppi moo gën a kawe crête donc ñaari puyu Axmayim yooyu bo bënnee gëmbal la fa né day ñëw. day ñëw fekk si parce que naar ñaar lañu am ñun ñu am ben donc bu ñu nangoo séddoo ku am ben yo nga am ñaar nangu seddo ko am ben ça veut dire que y a un problème kooku mooy premier problème mais amna ben deuxième problème bo xamni euh, sensible na sensibilité bo xamni man sax mënu ma ko aborder parce que du responsabilité du patriotisme bu nek suñu digënté ak Mauritanie Idriss Seck di le président Macky Sall parce que xamna ni mënu donc ci mais jarna lu nek jarna ñun Ce qui est ki vraiment donc lolu spécificité bi am ci bloc parce que 1 euh, euh, euh, la fay bal dafa extraordinaire ba nga xam ne dafay am impact ci ci ci ci ci contrôle gaz bi à travers le monde à travers l'Europe ci wàllu géopolitique dafa am ay répercussions yu grave yoo xam ne bu ñu duggee ci gaz ak pétrole carrément danañ ci dem ba ba ba ba ko léegi fi may jëlee document yi euh, état bi nee naa la dafa tënku

secret professionnel secret professionnel. ah c' est pas normal. c' est pas normal léegi man dama dox vite rek parce que émission bi jeex na grand dimbali ma rek. waaw nga baaxee ma yan yan bërëb ñoo am pétrole vite fait rek. ñoo am ñoo am pétrole ci Sénégal waaw waaw ma terminé ci li ma laaj. parce que am na léegi ay ay patriotes yoo xam ne. Mhm. ñoom mënuñu jël responsabilité wax li may wax nii. Mhm. parce que seen liggéey mayu leen ko gis nga gis nga gis nga article 66 bi. Mhm. Euh, mën nañ ci ñàkk seen liggéey. mën nañ ci tëdd kaso. mais ni ñuy def alalu réew mi neexu leen

mais amna fo xamni do am ndox mën nga am même benn tol nga bënn fi am ndox bënn fee do am xam nga nappe bi mooy am lu muy bindo loolu la satellite di xol di localiser loolu rek la te bu pétrole day am zone yo xamni hydrocarbure bi day day emprisonné wu ci benn roche benn xeer bo xamni day am forme leket day am forme dóom légui fofu boko ko da fay am pression donc puits bi fay rentable commercialement bu fekké ni surface bu plane la bo fa bënnee di pétrole mais du am pression am na ay puits de pétrole yoo xam ne dafay am wañ bu ngand buy wàcc di yéeg ndànk-ndànk comme déric ak yooyu puis yooyu ay pompe là en fait pour dimbali débit bi mu rentable commercialement ñun soxlawuñu loolu au contraire ñun dañuy brûler torche sax pour wàññi pression pour mën ko gérer xam nga donc euh, mais Sénégal yëpp pétrole la ak gaz. waaw loolu loolu nag euh, sama suñu mbokk internet yi ji ak géej waaw loolu du jeex. suñu hmm. émission ak Clédor Sène du jeex. parce que dafa bari loo xamante ni moom daf ñu ko daf ko xam di ko gëstu ci wàllu lépp loo xam ni Sénégal doo ko am ci ressource minière tey nag dañu leen ko indiloon moom pour mu leeral parce que dañ ko joroon def audio def ko ci rajo Rip FM 107.0 ñu bari di ko réclamer Il y a yaakaar de na mais des na bëgg ay rubrique vous avez chaque émission may 10 minutes ressource minière lañ avons exploité ban la am euh, pétrolière Sénégal ak nax ñu état ah, euh, dina les remercier Isma Pro nga xam fekk ci chaîne YouTube Abdou Karim euh, pour indi grand Nous remercier aussi pour ci disponibilité bi ak ci risque yi mu jël ni pour léral ñu ñun aussi suñu xeexal Sénégal leeral Sénégal laka la lan mo fi am ci mbax naka lañ koy jëriñu ak naka lañ def ba ñun ñu conscient ci naka la sunu njiit depuis 1960 di ñu sàcc mo gisé émission man sama wax bari wu ci bindoon na sax ay question dama gisé na naa bàyyi grave bi mu développer parce que dafa bëri yoo xam ne boo ko da nga yàq wax bi ma ngi remercier bu baax baax ñi doon seetaan ñëpp leen bëggé leen jox daj dox daje encore affaire du yam rek légui ci audio dañ defaat yenen yenen émission inshallah ak ñenen ak ñenen ak ñenen inshallah allahu rabbi du yag dara ma ngi bëggé euh,

Euh, sonal naa la nag fu nekk laa lay lijjanti Sénégal la ko jàpp jërëjëf jërëjëf merci beaucoup pour leeral askan merci beaucoup merci merci pour plus de renseignements képp koo xam bëgg nga am loolu leer ci eh, euh, loo xam bëgg nga ko laaj comme question wala loo xam bëgg nga ko suggéré wala loo xam bëgg nga ko si yokk wala nga bëgg ci jàpp pour li gën a tas na nga woote ci 77 810 17 45 77 810 17 45 jërë ngeen jëf wasalaatu wasalaam ba noppi ñu ngi xaar tamit seen com seen commentaire pour mën a gën a orienter suñu intervention c'est très important parce que commentaire yi mm-hmm. day baax pour ñu xam ban merci beaucoup pour mu gën a réfléchir quoi commentaire yi am solo loo xam ne yéen xam nañu am ngeen xam-xam am nañu mën a dimbali wax ñu ay questions yoo xam ne ñu mën a dimbali pour ñun ñu gën a mën a aussi suñu débat fan lañ koy pousse pour xam xel yi gën a naaj ñu gën a mën a leeral nit ñi naka la ñuy utiliser suñu ressources minières jërë ngeen jëf